li ñuy njëkk laaj yow yaa jiite euh, kuréel gii di sàmm jikko yi. dëgg yaa ko jiite. lan mooy lan moo waral kuréel gi ak ak lan mooy sàmm jikko. waaw kuréel gi moom jàpp naa ne mooy kuréel gi gën a neex a identifier ci réew mi. Hmm. maanaam kuréel gi gën a neex a xam kuréel goo xam ne da ngay dégg turam rek dootoo laajtee ci dara. Hmm. boo bëggul polémique. Hmm. parce que tur wi dafa leer mooy lan ànd sàmm jikko yi. mooy kuréel gii. dañuy toppatoo wàllu jikko dañuy toppatoo wàllu jikko point léegi nag kuréel guy toppatoo wàllu jikko jàppoon naa ne warul woon nekk lu extraordinaire maanaam loo xam ne bu xewee ci réew mi day mel ni lu lu jaaxal ñépp te xamuñ ne jikko bu yàqoo doomu aadama yàqu doomu aadama bu yàqoo société bi yépp yàqu kon lu mel ni ànd sàmm jikko yi bu amul woon dañ ko war a créer ngir mën a utal société bi ay cëslaay ndax société bu amul ay jikko na ko shaacir ba wooyee innama al umamu l axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum dahabu Sid Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm ku fonkoon baytu boobu la Ahmad Shawqi dafa nii nee na aw askan ñi ngi desee ci histoire ci seen jikko yu sell mooy tax ñu desal leen ci histoire di leen nettali gis nga tey li fi bàyyi turu maam Serigne Touba bàyyi fi turu maam Cheikh Oumar Cheikhul Hajj Malik euh, yunti yàlla mu sallallahu alayhi wa li tax ñu des ci histoire ba léegi ñu leen di tudd du alal. Mm-hmm. waaye seen jikko yu tedd la. Mm-hmm. mu ne jikko yooyu bis bu raafee ci aw askan askan woowu dañuy effacé wu ci histoire kenn dootu leen tudd. Mm-hmm. loolu moo tax kuréel gi bi mu ñëwee mu yittewoo sàmm jikko yi. parce que gis nañu kuréel gu nekk am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour protéger nangam ñi ne pour protéger nangam ñi ne pour protéger nangam ñun ñu ñëw ñu ne pour protéger jikko yi. jikko yi loolu mooy ànd sàmm jikko yi mooy mission bam hmm. mooy am ñu war a taxaw ngir sàmm. Hmm. valeur yi nu am a kës néew. ñu di ko bëfuwee ñu taxaw ba mën ko garanti. mais est-ce que bi ngeen ko taxawalee Assane mm. Mesere bu ñëw yor kuréelam mm-hmm. Sonia bu ñëw yor kuréelam Sandiog mu ñëw yor kuréelam ñoom bu ñu dee ñëw est-ce que mënuñoo ñëw ñoom à personne mm-hmm. mais ngeen récupérer kuréel yi ndax da nga dégg ñooy sàmm jukka yi nangami kuréel di si bokk est-ce yooyoot kuréel yi bu ñu jekke génn ak du néewal doole wala mu doon loo xam day jaxase bopp nit ñi daal kuréel yooyu ngeen doon encaissé est jaroon na kuréel ngeen encaissé a encaissé dafa am adhésion yoo xam ne nit ki moo koy defal personnel mooy ñëw ne bokk naa man Assane Mesere ñëw naa bokk. Hmm. am ñoo xam ne nag ab kuréelu lëmm ñoom ñooy gis ne ñoom combat bi ñuy mëne ñoom. Hmm. gis nañ ne combat bi dafa dëppoo combat bi waa ànd sàmm jikko yi di def. Hmm. ñu ne léegi ñun nañu dem boolook ñoom boole suñuy doole. ndax ñu gën a am doole ñun ñëpp. loolu mooy indi. ab kuréel ñëw bokk parce que mm. kuréel bi dafa gis ne moom li muy xeex bàyyil ma jox la misaal ci benn kuréel mm-hmm. pour mu gën a yaatu Adama Mboup mi ngi yore benn kuréel bu tudd commité de défense des valeurs de valeurs morales mm-hmm. moom kuréel la goo xam ne li mu daan xeex mooy di jéem a défendre valeur morale yi mu gis ànd saa mujj mais loolu gis ne ni lii sotti ceeg def ci la mm-hmm. mu boole xeex bi ak xeex bi noonu la amee ci Cheikh Babacar Mboup noonu la amee ci sëñ Makhtar noonu la amee ci ñeneen noonu la amee ci ñeneen kon dafa am kuréel yoo xam ne dañoo gis seen bopp ci li ñuy def ñoom ne kuréel gee moom lay def ñu ne nañ ko boole mu am doole. am koo xam ne dafa gis ne kuréel yii li ñuy xeex. man lii daal convaincre na ma parce que gis naa ne jikko yi dañ ci war a taxaw. waaye àndul a kenn mais gis na ni lii. combat bu noble la mu ñëw adhéré xam nga ñii ñëpp munoo leen a tere ku ñëw danga naan ko bismillah. Mm-hmm. parce que yéene bi mu dikkee ak li mu yëg boppam ci combat bi. foog nga bàyyi ko ki ñëwee personnel ñëw ki nga xam ne dafa ñëwee collectif mu ñëw. Mm-hmm. loolu am na solo xam naa ne danañ si dikk rek si ay leeral ak mm-hmm. waxtaan woo xamante ni. fii moom du ñu bàyyi leen. Ah, dañuy waxtaan dañuy laaj. Euh, dafa am euh, ku ñuy wax euh, oustaz Elas. Euh, Diop. fii la ko sony bu dalaloon. Mm-hmm. mu yëkkati ay kàddu jëmale ko si maam Makhtar Gueye. Mm-hmm. ginnaaw bi mu jur ay polémique ba oustaz maxtar saar dugg si leeral ko. Mm-hmm. moom it mu toogaat fii ba jégglu maam Makhtar. Mm-hmm. maam Makhtar si jam dama ko bañ a booleeg Mélenchon bi. mais Mélenchon bi taxawaay bi ngeen ci amee woon ak affaire yooyu moo tax daal waa Jamra ak seen mbooloo mu bari moomu ñu daal rocceeku si saamu jikko yi daal di daal di beru est ce que loolu du leen xaw a néewal doole ak it lan moo tax maam maxtar bi mu génnee dabu jiwu leen ko ak it oustaz est ce que mun leen woon a wax ak moom laataa muy wax lee maam Makhtar ba tax muy mer di génn. waaw xam nga am ànd sàmm jikko yi du yëfu benn nit. du benn kuréel. ay kuréel la wax nga ko léegi ay kuréel yu dul jeex. Mhm. Euh, génnu Jamra. ñëw dal ci affaire Oustaz El Hadj Diop Gaye Cheikh Baara Ndiaye. dañoo mhm. wax Mame Makhtar Gueye dafa euh, am problème mu xaalis. Mhm. ci misaal. man benn problème rek laa ci am. lan moo ci nekkoon yoonu ànd sàmm jikko yi. <laughs> lan moo ci yoonu ànd sàmm jikko yi. Hmm. que Cheikh Ndiaye am na problème sëñ Maxtaar Oustaz El Hadj Diop am na problème ak sëñ. Hmm. Maxtaar. Hmm. loolu lan la ci sàmm jikko yi ma jox la ci misaal. <coughs> Cheikh Baara Ndiaye dëgg la day jàpp ci combat wu sàmm jikko sàmm jikko yi esprit la. képp ku combat bi ñor ci nga bokk. def nañ manifestation Cheikh Bara Ndiaye ñëw indi solidarité am wane ne ci laa bokk parce que xëy na combat bi convaincre na ko. Mhm. loolu kenn mënu ko bañ. mais ku xam seex Bara Ndiaye xam nga ne xam nga ne bokk na Modap. Mhm. bokk Modap Modap di benn kuréel ci biir parti politique bu tudd Pastef. Mhm. El Hadj Diop Gaye yor carte Pastef di membre ci parti boobu ñoom ñaar Ousmane Sonko mooy seen leader. ñoom ñu gis ne dañoo dal ci seen kaw leader. ñoom ñaar ñu génn attaqué ki dal seen kaw leader muy maam Maxtaar. loolu lu ci yoonu sàmm jikko yi ñooñu waxuñ ci turu sàmm jikko yi. Mm-hmm. waxee ko ci biir sàmm jikko yi mm-hmm. ñoom gis nga oustaz El Hadj bi mu fi ñëw li mu sol. kaba wane ne man ab militant laa bu ñu laal leader am. Mhm. loolu lu baaxoon lu dul dal ci waa parti boobu loolu lu ci yoonu sàmm jikko yi ba mu ciy wax mbaa mu ciy def. ah boobu seen yoon nekk ci ñooñu waxuñ ci ñun. Mhm. tàgguwuñ ñu waxeewuñ sunu tur. Mhm. Cheikh Bara Ndiaye fii la ko waxee chronique bi muy def. chaque jeudi. di wax ci actualité politique ci lépp. ba lépp nag. ba yegg ci foofu wax ca. wax ja engagé wul modam. engagé wul solution. dem engagé ji sàmm jikko yi ci lan. te Baara Ndiaye waxul ci sàmm jikko yi laa ko jëlee. sa à lan moo ci yoonu ànd sàmm jikko yi. ba nu def ko prétexte ne moo génne Jamra ci biir. ak waa ànd sàmm jikko yi ñoo may taxé loolu. dañ koy bàyyi ak sénégalais yi ñu juge loolu. parce que sàmm jikko yi amul jotu. di dabu nit di ko tuumaal mbaa di ko leneen ñun combat bi mu nekk daf ñoo doy sëkk. même Cheikh Ababacar Mbuub mm-hmm. cité nañ ko ci waaw. bi ngay ubbi léegi wax nga ko. Cheikh Babacar Mboup kàddoom yi muy wax ci plateau yi mais engagé wul sàmm jikko yi lan moo tax mu génnee sàmm jikko yi bañ a wax kàddu yoo xam ne daf ñuy engagé. bi mu jëlee engagement di politique yi. mais dem nekk candidat mais pour mu mettre ñu en l'aise ba bu waxee duñ ñu ko yan. mu ne rocceeku naa ci coordonné sàmm jikko yi pour mën a libre di wax ay waxam que mu engagé ko. Mm-hmm. Babacar bu waxee. Cheikh Babacar Mboup bu waxee nit ci loolu. Mm-hmm. sëñ bi booy wax doo wax Cheikh Babacar Mboup loolu lu ci yoonu sàmm jikko yi cest amu ci benn kàddu boo xam ne lu engagé. Mm-hmm. sàmm jikko yi la. Mm-hmm. ban mën cee wax mbaa ñu def ci mbaa ñu dindi ci. kantaan nag. diggante bu ne mën na am jafe-jafe. suñ ñu ci yëgalee ñu yëg na war nañ cee dox tànki jàmm ñu dox ci tànki jàmm mais kantaan waa sàmm jikko yi ñoo may attaqué ñoo may diffamé ñoo may def nangam sëñ bi man loolu ak tooñ laa ko jàppee parce yàlla ànd sàmm jikko yi amul kenn ku yore kàddoom hmm. mën a wax ci kaw nit. Hmm. te boo paree ña nga ko bokkal du ñu wax ak yow. Hmm. te an sàmm jikko yi du doxee noonu. an sàmm jikko yi gis nga bu naree jël benn décision. dañ koy waxtaanee. ba d'accord man mën naa def sortie boo xam ne du engagé kuréel gi. oustaz Makhtar day def. sorti boo xam ne du engagé kuréel gi. ah waaw te te ah, nit yi kuréel bi ngeen. jotee wuñ dara parce que ay nitu public lañ dañuy dem ci public bi di wax. Hmm. mais bu kuréel gi war a wex dañuy daje. ne hmm. lan la kuréel gi bëgg a wax ñu tënk li mu war a wax. Hmm. ñu ne yow Baba Gër mu wax ko. wala sëñ Adama Mbuub wax ko wala Baba Gër Sële ñëwal nga wax ko. c'est pas force que sax dama nekk coordinateur que. buy wax man maa ko war a wax de boo waxee rek ñu ne waa sàmm jikko yi plainte bii ñuy gis nii ci ndaw si montant Adja Ndeye Diop a ko jiite ci faamu sàmm jikko yi la bokk ci jigéen ñi waaw ci jigéen ñi moom moo jiite jigéen ñi sàmm jikko yi Seyda yi la dajale def plainte bi ñu ànd def ci yëpp dinañ ci yegg si sax ci kanam. incha allah sëñ Adama bi ñu defee suñu conférence de presse bi mujj moom la ñu jox ne ko discours bi yaa koy wax. Mhm. c'est-à-dire ànd sàmm lay defee du yëfu benn nit. Mhm. cest pour nit ñi xam ne ànd sàmm jikko yi amul jotu. Mhm. nekk ci ay polémique gu di diffamer nit. ak di sosal nit ba fii ñuy wax ànd sàmm jikko yi ŋaaŋu ci ñeppiwu ci. parce que nag dadul yëfu benn nit. du yëfu ñaari nit. te lépp lu muy wax da koy waxtaane ba ñu yëg ni lii ca war a génn ñu génn ca waaye kàddu yi ma dégg ñu koy wax ci mbedd mi moom amul lenn lu ci engagé ànd sàmm jikko yi de près ou de loin dara jegewu ko ci kon daal su ma la déggee tey jii bu ma la éviter ni la kaa ñu waxtaane euh, li nga xam ne mooy sàmm jikko yi mhm. yéen ngay waxtaan si mbirum sàmm jikko yi mhm. après nga daan si wax si turu sàmm jikko yi attaque nit su boobaa mën nañoo wax waa sàmm jikko yi ñoo ma attaqué waaye bu fekkee nit koo xamante ni day ñoo di wax xalaatam ba ex dara mu wax dañ jàpp ni kii wax ni xalaatam la wax mais du waa sàmm jukko yi mhm. man ci honnêteté am na loo xam ne soo ma ko laajee ne ma lu ci kuréel gi wax mhm. bu dee kuréel gi waxagu ci man dama la war a wax ne la mhm. lii may wax sama kàdduy bopp la du kàdduy kuréel gi parce que waxagun ci mais bu fekkee lu ñu regle woon la ba pare ba wax ne kuréel gi position bii la am ci góor jigéen wala position bii la am ci ndaw si boo ma laajee dama ciy wax directement mais nag bu fekkee waxuñu ci. Mhm. dama naan la ah en tout cas man sama kàddu bopp. Mhm. lii la ci kuréel gi wax. Mhm. moo tax yooyu tamit ki nga xam ne moom moo représenté kuréel gi. mooy xàmmee fi mu war a waxalee waxi boppam moom. ak fi muy waxee waxi kuréel gi. te yooyu jàpp naa ne benn dalaguñu ci nag. benn dalagu leen